asalaamaaleykum yéen mbokk yi nga xamante ne si yéenay topp seen site internet murid point info man Ndeye Thiam Saliou maa ngi wàcc fii tey ci terrain bi nga xamante ne si mooy di rue de Darou wàcc ci tali bi gis ngeen li nga xamante ne si mooy jub si ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Bachir Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te guddal fanam te wéral ay cëram tey nag gis ngeen lu màgg dafa xew muy lan pré élection présidentielle tey nag ñi ngi wàcc treb di def benn micro trottoir laaj ñi nga xamante ni si ñooy citoyens yi ba xam naka la dundee élection yi naka la dundee campagne bi nii ak cinq candidats yi ndax tension bi dina am lépp di ngeen ciy ànd ak ki nga xamante ni si mooy Ndeye Thiam Saliou ngeen topp ko ci biir mu wan leen li nga xamante si moo am ci micro bi ah, kenn ku ne xam ne ànd ak dara rek ta xam aduna mom lo fi gis lu ne lu dogal lu nek day fekk dogalu suñu borom bi ci lay bok ndax yalla mom moy sak njit kon ku ñu fi suñu borom tegal rek koku mo fi tok kon ñu and ak mom ci lolu non en tant que citoyen kan moy sa candidature. kan man lolu <laughs> de pop dina yéeme ne ko lolu de wo amako nek sa xol. waaw lo gis ko ne mom kenn ko ne amna ko nek sa xol waye nak ci sama xol mom mooy ki nga xamante ne bu fi toogee rek toogal fi askan wi yëpp looloo ne sama xol ndax mooy li ma wax rek sama première wax suñu borom mooy sàkk njiit kon mooy seet ku ko ku war a toog rek suñu borom teg la fi. durant sept ans bi Macky Sall def moom ayam gi gisuñu suñu bopp moom dëgg yàlla man moom gisuma ci sama bopp déedéet. wax dëgg yàlla moom bi ñu toll nii man bokk ki man jàpp naa ne moom mu ngi dox bu baax a baax. sama côté waaw. en tant que citoyen nag kan mooy sa candidature. man ah, man wax dëgg yàlla président laa bëgg a wooteel bu ci yàlla andee waaw. durant sept ans bi Macky Sall toogee gis nañ rek la wër moom waaw ci Sénégal li ci Sénégal période bi ñu dafa soxla waaw ndax ñun ndaw ñi am jàmm bu ko ñu suñu baax waaw. leen ni élection ah man moom période bi moom wax dëgg yàlla daanaka man na ma ba ma juddoo ba tey gisu ma sama bopp ci réew mi ah. ma ci réew mi. parce que kan ah Sonko. Sonko ah, xanaa ku ko yàlla jox rek ñu xam ne loolu mooy sa sens daal te lépp ñu teg ko ci yoon bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo ndax ndam li Sénégal lay des te Sénégal benn boobu la kenn mënu koo xar bu fekke Macky mo ko war a yalla yàlla na ko yàlla jox bu fekke Sonko mo wara yor ba ci Karim ba ci Khalifa Sall ku ko ci wara yor <laughs> yalla na ko suñu borom jox waaw dal te lepp nek ci jàmm ak dal. en tant que citoyen soxna hadi ndax man nañ xam xam kan mo sa candidat. non man mom Macky Sall laa. APR la su ma sañoon mu toogaat ba election yi de man manam man ki fi nekkon ki fi nekkon de man man de Ablaye wad mom wax dëgg bim fi nek de mom li waji wax legi rek bim fi nek de mom la gëna gis sa bop man ndax booba wax deug yalla saret la yor te booba wax deug yalla tubaarika la ma ngi am lu bax ma ngi kenn duma sonal kenn duma ma ci tëli bi kenn duma wacc wàcc tëli kenn du duma ci tëli bi kenn duma def len wax deug yalla bi fi ablay bi di nek am suñu yermane lool nak ah ki fi ne mom wax deug yalla day ñun ba ma saret ba ma fi ne ba legi mom saret bi mom fo ab saret lan yaakar ñun mom lan yor ci lan yor suñu njabot kenn du ñu ci repass kenn du ñu ci pep kenn du ñu ci te buñ jaaree ci télé bi ñu dinu dàq diñu dóoru mel ni ñun daal ay Sénégal yi bokk Sénégal daal loolu jaax nañu trop ñun borom sare daal wax dëgg yàlla noonu dëgg yàlla soxla nañ changement bu wér a réew mi bu dul Karim Wade di beneen président bu fi a toog pour réew mi nu mën a doxee mu di ko defee ndax nit ñi vraiment am nañ yéene liggéeyal mais léegi-léegi duñ am liggéey léegi ñun ñeneen ñi am nañ liggéey ñeneen ñi amul liggéey waaye nag lépp ñu di ko sant yàlla bu baax a baax di ko sant Serigne Saliou Mbacké yàlla dogal nag réew mi naqari waaye ñun gisunu lolu li gis mooy sa suñu xëyee suba rek ne suñu yef di dox ñu sant yalla bu reugal ma candidature wa Sonko. waaw. mo sa candidature. ah rew mi ci Macky Sall la. Macky Sall kat dafa wara wacce na Macky Sall limi mu def yoon. en yow gisoo sa bop ci Macky. Macky deet Abdoulaye Wade mo mo moo ci si laa gis boppam. Abdoulaye Wade moom nga bëgg. waaw mais comme Abdoulaye Wade bokul Karim bokul kan mooy sa candidature. kan nga bëgg ah. voter. Idrissa Seck mosoo gis benn ministre ñu ne doomam mi ngi xeex wala mi ngi taal ay pono euh, nit ñi ministre yi am nañ fulla bu doy ne seen doom ñi ngi à l'étranger di jàng mais pourquoi pas ñun ñu ñu ñu jël suñu suñu arme muy suñu muy suñu kart def ko histoire pour man koo xeexel mais pas taal pono pas histoire pas waxante ñaaw affaire yooyu maanaam j'aime pas daal. ñun peuple bi ci suñu bopp noo war a am fulla ndax poli politiciens yi moom ay ay mafia lañu rek comme yeneen état yi groupe bu dajaloo ba jël réew mi séddoo ko toog di lekk ba doyal ñeneen dem loolu dong la ñun ñi peuple bi nag ñoo war a am bopp seet ñi ñuy fal jar nañu seet ci civil yi maanaam nuñ koy waxee kii bi. ñi nga xam ne du ñuy politique ñu fal leen jox leen réew mi ba xam ni ñuy def ak moom. bi lañ gis ci réew mi jaaxal nañu daal yaay yi sonn nañ fi ñu ñu ngi liy seen doom yi bu ñu ci dimbale woon daal ñu jël ndax ñun jaboot ji sonn nañ xale yi jàngeetuñ génnatuñ jamatuñ fenn ndax bu ñuy jàng sa xel du yaa ngi xalaat ñu kar leen mën nañ ko rey mën nañ ko def loo xamante ne du jaadu bu ñu ci dimbalee daal ñu jël. man aw ma candidat damay wax damay faral di wax daal que le meilleur gagne. Euh, avant tout après ñuy def nànk rek parce que yàlla daal moo am nguur te moo xam ki mu koy jox kon nag fii ñu war a mën a def nànk tamit mm-hmm. loolu daal la am si lu may wax. Mm-hmm.